kon mbokk yi gis ngeen mi ngi noonu alxalqa al ashara baa ngi noonu jotaay baa ngi noonu léegi nag euh, image bi jëlee nañu Égypte waaye indiwaat nañu fi nga xam ni mooy euh, Kanaan te mooy fa baaje nekk lan lay ñaan ma nga ne li di ñaan yaay boromam subhaanahu wa taala ya arhamar rahimin yow mi dàq yërëm ñëpp ayna hiya al-aan al-hadiya biha yàlla ana cadeau ba nga ma mayoon ana may ga ma mayoon soxla naa ko yàlla alazim la yastarjiu alataya ahad yàlla boo joxee doo jëlaat doo nanguwaat li nga maye ahad ilaya waladi yusuf maa ngi lay ñaan nga delloo ma sama doom mu yusuf rudd alaya waladi yàlla yàlla nga ma delloo doom ji mooy la ma leen waxoon allahuma rabba dallati mi xam li réer ak fa mu réere ak na mu demee maa ngi lay ñaan nga delloo ma ko kon ñaan googu yanqur ñaanaan na ko nee na yàlla ana la nga maye woon te doo maye di nangu yàlla maa ngi lay ñaan nga delloo ma la nga ma joxoon muy sama doom yusuf fukki gis ngeen bàyyi ji wacc bi la ca feeñ xayba ba mangoog kooku beneen gis-gis la am na leneen lu muy yëg ci biiram ah njaboot gaa ngi noonu sàmmi bay doog a ñëw yow sama doom maa ngi lay yëg yàlla na la yàlla aar wër na ma yaa ngi dund yow Yusuf allahu akbar allahu akbar ah dégg nga de loolu mooy al yaqin nag indal awliya ci nitu yàlla yi danañ tol foo xam ne yàlla da leen di may yaqin mooy xam-xam bu wér te yaqin dana bari fu muy jaare mën a jaar ci ilham mën a jaar ci xawaatir boo xam ne day na xawaatir sadiq mooy yëg-yëg bu dëggu أعيد الكرة واسأل أولادي من جديد عما صنعوه بأخيهم demal laaj sama doom yi laajaat leen lan lañ def ci sama doom yi. yatuubu ila rushdihim haadihi al-marra. amaana yàlla wëlbati leen dëgg. waaw amaana yàlla wëlbati leen dëgg man laaj. takuna wathiqan min anna. lan moo lay wóor Yuusuf mi ngi dund loola wóor loolu. gis nga mbokk yi góor gi am na yaqin léegi. ne ko li wane ni uh, mi ngi dund ba léegi. ba ci njëkk mooy. alladi lam tumazziqhu anyaabu dhaib. yéere Yuusuf bi nga xam ni till ba xotti ko. benn ngoog qalbun salimun xassani bihi llah. waaye xol beneen ba mooy xol bu sell mucc ayib ma yàlla jagleel la akbar nee na garaaw sa ufatixuhum bil amr danaa dem laajal leen walaw annani faqidatul amal donte ñàkk naa yaakaar danaa dem laajaat leen mbokk yi alhamdulilah gis nga ko de góor gi nag àgg na ci martabatul yaqin fi nekk ni lu am solo la moy mooy maraati bi nga xam ne nit ki nit ki jëm ci yàlla dana ci àgg nee na jàkk jàkkaarloog ñaan ko ba mu ba àgg yaqin daal di koy ñëwal mu wóor ko ni mu doom mi ngi doon ndaxte dégg na Yuusuf di jooy ci biiram damaa bëgg sama doom yi nangu seen bàkkaar bi ñu def damaa bëgg ñu tuub dellu ci yàlla góor gi nag xol amaana amaana yàlla jéggal leen lamb leen. mbala lam nara dalika bi ummi al-ayn. nee na gis ñu loolu de wa nahnu waathikuuna anna dhaaba qad fataka bi Yuusuf. ñun xam nañu Yuusuf ba ko rek eh, till ba lekk na ko gis nga yaa ji de da ngeen di seetlu donte wax ji ngay wax. حتى أجلدكم للصياط فتسود جلودكم إذا كان الذئب قد فتك بيوسف فلماذا لم يمزق قميصه؟ لا علم لنا بذلك وقد صار الأمر لغزا وقد عايتنا الحيلة في تفسيره ألعنكم فردا فردا يا لكم من كاذبين الذئب لم يفتك بيوسف بل ذئاب الإنس فعلت ذلك ذئاب الإنس فعلت ذلك nee na ko till nit ay nit yu nekk till ñoo def loolu waaye Yuusuf moom till ya lekkuñu ko li ngeen wax dara du ci dëgg waaye xale yi seen xol yi wow na kalla barana ala qulubihim ma kaanu yaksibuun yal nañ ci yàlla musal doomu aadama dana toll ci mooy yàlla ak jikko ju ñaaw foo xam ne xol bi day xumaat comme ni weñ ni xumaate yaay ji dem na laaj waaye xale yi fenaan nañ ko ba tey fen yaay fen ba yàlla nañ ci yàlla musal annahum karraru qawlahum inna dhi'ba akala axaana nee ñoom xam naa ni baamwaat nañ leen waxoon ni til yaa ko lekk asalullah an yatuubu ila yàlla yàlla balaa balaa balaa man minkum yadfa'u aksar ah mbokk yi delloo nañu ca nee na kan mooy fay lu ëpp ci waa ji fay te ñuy ñëw di jaay fii nag marché la boo xam ne ay jaam lañ fi jaay waaw ñu ngi waxaale boo fayul lu baax du ma la du ma la jaay fayal prix bu baax fii nag ay jaam lañ fi dajale di leen jaay nee na ma daal dama bëgg jaam bu méngoog man nga ku nekk yaa ngi wax say waxe bopp ñëw leen fii ñëw leen. man li ma yor eh, marchandise ba ma yor moo gën. اشتغل عبد ثمنه ضاعف 150 عاما junne junne téeméer ak juróom fukk lay jar. linabhath an ghayrihi. waaw ñu ni mu ni nañ kii baaxul nañ seeti beneen nañ seeti keneen. gis nga marché marché de moom noonu la marché hebdomadaire moom noonu la marché bu ci jënd bi noonu. xale yi mën nañoo bay mën nañoo liggéey. ñëw leen ci man ma jaay leen sama jaam ñu topp digal leen ñi ay jaami jigéen lañ ñoo leen di jaami jigéen ñi jigéen ñi mën nañoo topp mën nañoo fóot mën nañoo baat xale yi ma yor ñoom mën nañoo mën nañoo liggéey ay at yu bëri xale yu am doole lañ téeméer ak lu teg nga Malick ak Falix ñi ngi noonu ñoom tamit ñi ngi exposé seen marchandise muy Youssouf. yow li ngay jaay lan la man beña laay jaay gis nga mbokk yi xooleen Youssouf fañ ko teg xam nañu marchandise bu am doole la bu cher la xale bu rafet la lu bari lay jar gis nga fañ ko teg lalal ko benn kii seeru dënk mu toog ba tey ferankulaayu mbokk yi melokaanu toog wii melokaanu kilifa la du melokaanu ku ndaw Malick Malick ay Malick kaay ma wax la Falix mi xam na lu bëri loo xam ne Malick sax xamango ko ndaxte gis na lu bëri yàlla wan na ko lu bëri. iyyaka an tabi'ah. Malick bul jaay xale bi Malick bu ko jaay. inna qalbi la yutaawi'uni ala bay'ihi aydan. alam tara bi nafsika kayfa annahu yatuuqu likay yubaa'a. waaye man nag xaw ma nan nan la ma saba xoolee may ma mën koo jaay rek waaye xaalis daa neex nag. arjuka qul li kam saaru haadha al-ghulaam. wax ma li ngay jaay njëgu xale bi wax ma ko. lastu nakhaasan wal 'ilma li bi funuunihim لكنني أعلم أنه غلام فطن حسن الوجه والعلم لا نبيعه بثمن بخس فما أكثر الفنون التي يجيدها والمعارف التي يحويها وإذا ما صار كاهنا في المستقبل سيشد الناس بحسن وجهه إلى المعبد حاول أن يكون من نصيبك نبدأ بخمسين دبنا خمسين دبنا موافق؟ لكن ثمنه يفوق ذلك بكثير مئة دبن تطرحون ثمنا زهيدا لقاءه من يجرؤ على أن ينفق فيه ما يليق به kii kan moo ci mën a fay lu jaadu keneen a ngi jaay nee na nee na ñuy jaay jaam nañu yoo xam ne dañuy lekk lu néew di liggéey ku nekk yaa ngi gaaral sa marchandise waaye mbokk yi Azizu Misra mi ngi noonu allahu akbar mbokk yi kii mooy borom këru Zulayqa moom tamit dafa ñëw ci marché bi ngir jënd jaam moom la yàlla wax ni wa qaala la budda an uthniya ala husni ixtiyaar al muwaqqar Potifar laqad ixtaara al makaana al amsala wal ansaba li shiraa al abd marha bi quduumika sayyidi atamanna an yu'jibaka haadha al abdu ya sayyidi ñëwal fii ñu jaay la صدقني هذا العبد ينجز عمل فرسين ما قيمته waaw nee na jaam bi mën naa liggéey liggéeyu ñaari fas ku am doole la هذا العبد الآخر وديع كالنعجة kii moom dafa mel ni naaja lan adfaa akthara min mi'ati dibn سيدي الموقر هؤلاء العبيد يستأهلون أكثر من ذلك nee na jaam yi jar nañ lépp lool nag ما رأيك في أن ندخل بالمنافسة لننظر ماذا سيفعله الحاكم léegi nag nañ xool lu xaakim bi def ba pare gouverneur bi nañ seet lu muy def. yaakaar naa xaakim de kenn mënta eh, kenn mënu koo diir mbagg ci jënd gi ndax moom xaalis la yor allahu akbar ah Yusuf a ngi noonu toog rek ndeysaan allahu akbar. tey xale bi li muy jar seen xam naa ni ñaari téeméer ak juróom fukk mën naa ko ci. xooleen mbokk yi Yusuf déglu leen ko. déglu leen ko mbokk yi mi ngi dégg gaay wax rek xool na kenn xoolal malaaka ba maa ngi ne la. yor ci biir Youssouf. Youssouf bul jàq. هؤلاء يشترونك اليوم ولكن ستحول الأحوال عليهم فتشتريهم أنت عن آخرهم. yow da nga dem ba jëndaat leen ñoom ñëpp ñoom ñi la jënd da nga leen jëndaat. waaw kon gaay luñ bëgg ci man mi ngi wax ak waa ji luñ bëgg ci man. الجمال مكنون في ذوات الجميع لكنه لا يبصر بالعين. أما أنت فقد خاض حسن جوهرك على وجهك. ci biir or waaye sax yow. sa jëmm ji moo gën a taaru or. innama waqafu yucaayinuuna aljamal alladi awdacahu llahu nee na yow taar bi ci yow la ñuy jënd ñoom. limaada yatuuqu haulaa'i lishiraa' wajhi alxasan. lan moo tax ñu bëgg a jënd sama kanam gu rafet gi. xanaa ñoom xooluñu taar bi war a nekk ci biir. nee na bët yi gis nee na bët bi bët bi ci bitti mënut a gis bët leer gi nekk ci biir. xanaa kanam gu taaru gi moo leen yóbbu li ci ñoom. di ko jënd لهم أعين يبصرون بها لكن بصيرتهم عميت عن رؤية الجمال كأنما تقول لجنني وهؤلاء سواسية nee na xanaa man jàpp na ne maa ngi ñëwee nee na damaa bëgg leer gi nekk seen biir xol ak seen jikko ju rafet loolu daal moom la ñu war a xool ñi nga xamuñu ku nekk nee na ñoom xamuñu ni nitu yàlla la ñuy dajeel. nee na bëgg gi la gaa yi bëgg mooy bëgg gi malaaka bi doon bëggoon maam Adama alayhi salaam. allahu akbar mbokk yi gis nga malaaka bi. mi'atani wa xamsuuna dibnan. ñaar téeméer ak juróom ñetti téeméer mën naa ko ci. ñetti téeméer mën naa ko ci. ñetti téeméer mën naa ko ci. gis nga de. waaw salaasu mi'a dibna ñetti téeméer salaasu mi'atin wa samanuuna dibnan juróom ñetti téeméer ak juróom ñett arba'u mi'ati dibn man man innahu jadirun bi akthara min dhalik man alladhi yunfiqu fi hadha al-'abd ath-thaman alladhi yaliqu bihi wax leen prix bi tolloog moom waay arbaa mia innahu mablaghun kabir innahu 'abdun qawiyyul bunya yastati'u an yajurra al-mihrath kath-thawr waaw nee na kii dafa mel dafa day day day wommat ay machine comme ni ko nag di wommat thamanuhum sittumaayatu dibn nee na ko ñett ñett ñi boole boole mën naa la ko jaay juróom benn téeméer juróom kii yastahiqu an yudfaa fiihi akthar min haadaa xale bi li ngeen fay tuuti na isma'uuni jayyidan keele moom mi ngi jaay moom tamit gis ngeen mbokk yi Azizu Misr mi ngi noonu mawlaay yow sama kilifa gi ajwad al-abiid ادفع له 300 دبن يستحق أن يدفع فيهم أكثر من ذلك fayal ñett téeméer xale yi li nga li nga li nga fay ci lii tuuti na mbokk yi gis nga day Aliou Mbisa moom ma ngay xool yu soppeeku kan moo mën a jënd sama jaam yi allahu akbar mbokk yi kii nag moo bëgg a jënd si Yusuf xool leen ko kii xale bu ndaw a ndaw la waaye ñu xoolaat yu su mbokk yi. intaliq. dabaaraw sori leen sori leen may leen kilifa gi mu ñëw. may leen azizu misra mu ñëw. dina ko déplacé ñu dem ba ci xale bële. ana adfau fihi alfa dibn. man mën naa ci junne. alfun wa ashruuna dibnan. junneeg. ñaar fukk. alfun wa mi'atu dibn. ah buur ba nee na junni ak téeméer. laqad daxala Potiphar saaxata almunafasa. nee na Potiphar bu ñu Potiphar moom bu ci duggee moom ñun dootuñu mën a fay. labudda li Potiphar min an yuhzama hada alyawm. nee nañ fay loobu lool rek. sa adfau alfan wa mi'atay dibn. Oh. alfun wa salaatu mi'ati dibn. Oh. 1300 دبن أليس فيكم من يدفع أكثر؟ جنيك جنيك فانويري أن الثمن المقترح يفوق قيمة العبد عشرة أضعاف ولكن لا عليك نينا خالي بي دال جارنا لو لولو بهذا العبد رغما عن بوتيفار نان فخه با جيل كي بي يوب باي بوتيفار أدفع 1500 دبن junni ak juróom 1500 دبن dégg nga lii maa ngi wax ne la boo fay na fay na loolu de ah kuy fay lóob loolu. هذا أمر وعيب يتكلمون كأنما يبيعون ويشترون سلعة ما nee na ñii dañoo mel ni ku jënd marché bi bu ñu xamoon xale bi dëggantaan wallahi danañ jël ay montagne alal def ko ci ca dugg ca xale bi ëpp na njëgam allahu akbar gis nga faleex mbokk yi dugg na ci tawhid wéetal na yàlla léegi fii ci Égypte mooy première ndongo bi Yusuf ca Yusuf fukki at ak ñett wala ñeent la am nee na ko fayal ñaari fayal ñaari nee na ko ëpp na loolu sax ñett ñetti junni fayal ñetti junni kii xale bi jar na ko. salaasatu alaaf. ñetti junni. salaasatu alaafi débn. alxakimu Potifar azizu Misr. wa qaa'idu juyuushi haadihi albilaad. ki nga xam ne moo jiite armée bi dëkk bi fay na ñetti junni. almuxtaram Potifar arada alayya salaasata alaafi débn. kon Potifar gis ngeen jox na ma ñetti junni. alladi yajruu ala munaafasati Potifar azizi Misr. mu ne kan buurika laka yaa sayyidi fi haadha al-abdi al-jamiil. Potifar yal na yàlla barkeelal la sa jaam bi jëlal sa jaam yow la nga ci fay. bàyyee nañ la ko sayidi innaka qad dafarta bi gulaamin di adabin wa kathir alilm nee na ko jot nga ci innahu wajhu saadin wa yumnin wa xayrin wa baraka xale bu am laqad bi'a hadha alabdu ila kon jaay nañ jaam bi tey Potifar jaay nañ ko ko ci ñetti junni loolu mooy li nga xam ni mooy décret bi génn ah mbokk yi mi noonu de انطلق nee na départal أقبل يا من تريد اقتناء أجود العبيد إن أجود الإماء والعبيد عندي أنا dégg nga kooku wax nee na jaam bi gën a rafet jaam yu góor yeeg yu jigéen yi ci gën a rafet maa ko yor ñëw leen ci man mbokk Yuusuf jar na jaay nañ ko ñetti junni kon Malick ñett ñaat la ko jëndoon fukk ak juróom-ñett jaay na ko ñetti junni waaye ndo mbokk yi ba tey gis ngeen malaaka bi feeñoon na ko ci jëmmi nit ndaxte malaaka daan na ñëwal ab yonent ci jëmmi nit a yonent bi sala sallam Seydina Jibril daan na ko ñëwal ci jëmmi nit feeñ na ci seen biir ni ko yow ñii kii la jënd dana la yóbbu waaye yow di nga dem ba jëndaat ko maanaam di nga dem ba yili fàlle ñoom ñëpp kon na sa xel dal bul tiir bul jàq mbokk yi gis ngeen day moo tax suñ borom wax ko ci alquranul karim ba tey bu ñu demee ci sunu sunu saar yàlla nga fay wax ni wa qaala alladi wa qaala alladi ishtarahu min misra limraatihi akrimi mathwaahu asa an yanfacana aw nattaxidahu walada wa kadalika makkanna li yusufa fi l ard wa linuallimahu min tawil al ahadith wallahu galibun ala amrih walakin akthara annaasi laa yaalamuun loolu mooy mbokk yi ci suuratu Yuusuf aaya bi nga xam ni mooy aaya ñaar fukk benn yàlla ni da nga xam ni nag jënd na ko ci misra ba koy ko yóbboo dafa wax soxna si ni na nga teral wàccuwaayu xale bi benn amaana mu jariñ nu wala ñu jàppee ko suñu doom ndaxte seen ay at amuñu doom yàlla mu ne nag loolu ci laa defal Yuusuf tamkiin mooy ak dal ci laa ko defal Yuusuf nag xelam dal ah, mu amuk dal wàccuwaay bu baax ngir ñu xamal ko yit ca biir pale booba firi gént ak la ca aju waaye mu ni yàlla ko not ay mbiram la waaye li ëpp ci nit ñi nag xamuñu aay boobu mbokk yi mooy gunge lii nga xam ni mooy fukkeelu jotaay bi alxalqa al achira kon xalqa al achira aay bi ko gunge mooy aaya ixda wa ishrin maanaam ixda wa ishrin ñaar fukki aaya ak benn ci suratu yusuf gis ngeen mi ngi noonu dugal na ko ca pale ba istadaw ilayya Zuleyxa. wal leen ma Zuleyxa Zuleyxa mbokk yi mooy soxnaam. من أين ظفرت بهذه الجوهرة الفريدة يا عالي المقام؟ اشتريته بثمن يفوق السحاب أيا كان الثمن الذي أنفقته فيها فهو يسير حري بذاك الأحمق الذي يزهد بجوهرة كهذه فيبيعها أن يطمر في جوف الثرى ويجاور الموتى الخلق تبيع الجوار والعبيد لتظفر بالذهب لكن هذا النخاس الجاهل باع جوهرة بحفنة من تراب يا له من خاسر waaye jaay or musuma ko gis ni lii seen teranga la nee na man ëpp mu ëpp mu jaam rek la nee na kon yow ñu ngi lay teral ci ter ñëw gi nga ñëw ci Potiphar. ishtaqta ilayya wa qad wasalta al-aan. gis nga nee na ko danga maa soxla agsi naa léegi. أود أن أعرف العلة التي استدعيتني لأجلها. nee na ko bëgg naa nga xam li tax nga may woo. هل تقبلين مني هذه الهدية؟ ndax kado bii ngay gis bëgg nga ma may la ko. ah siggi na allahu akbar mbokk yi gis ngeen gis ngeen bëtam mi ngi njëkk a tegu ci Yuusuf lu mu yëg alam li an raytu hada algulama min est-ce que xale bi musuma kaa gis kii daa ni mus naa koo gis de la rubbama fi aalami ruya aw rubbama benn ma gis ko ci jàkkaarloo wala ma gént gis ko rek waaye xale mus naa koo gis man daal xamatuma waaye kii daal daal mus naa koo gis ah, kanamam daal raarul ci man tumurankewul ci man mos naa koo gis fenn la budda li min an uthniya ala dawqi almuwaqar wa xusni ixtiyaar faaw ma tànn innahu la nadira la faaw ma leeral leen mooy xale bu rafet la bu taaru la noo tudd Yuusuf Yuusuf laa tudd Yuusuf Yuusuf imma annahu ismun arami nee na bu dee ñun tur yi tur boobu xamuñu ko waaye benn mu nekk turu turu arab la war a turu ibrani rek mu ni al ibraan ñu ne ibraan lañ kanaan fi bilaadi kon ñii waa kanaan lañ ak jàpp faddaan ñooñu la innahum qawmun min ru'aati al agnaami wal abqaar nee na ñii seen i seen i mbokk ay sàmmkat lañ gis nga ñi ñi wër buur yi ñu xam ñu xam ay ay xeet lañ Yuusuf ma xool ban tur laa koy jox Yuusuf ban tur lay tolloog suñu dëkk bi non non du بين القبائل الرحل ساكني الصحراء nee na bëgguma ñi nga xam ne dañoo dëkk ci àll yeeg yooyu ñu ñu jox ay tur. إذا سمحت لي أود أن أطلق عليه اسما مصريا. dama ko bëgg a jox beneen. هذا الولد هدية مني إليك. nee na man daal kii xale bi maa la ko may. ناديه بالاسم الذي يحلو لك. seetal tur bi nga bëgg nga tuddee ko fi gaayati shukri wal imtinaan li sant naa la gërëm naa la ida adina li mawlaay sa aqtarihu isman masriyan ala yusufa hada danaa la gaaral benn tur nga xool ba xam booy remplacer turam inna ashbaha al asmaa bismi yusuf ndaxte tur yi gën a nuru turam ci ñun yuzar siif yuzar siif yuzar siif yuzar siif nga ko tuddee baax na baax na baax na parce que tur woowu moo méngóog suñ suñu dëkk yuzar siif ismun jamil nee na turu rafet la. min al ana fa saa'idan sa unaadika bi haadha al ism. kon tey bis ne tey tur woowu laa lay woowe ndax d'accord nga. idaa kaana daalika yurdiikum fa ana muwaafiq. loolu bu dee moo leen gën rek man d'accord naa ci damaa bëgg ngeen teral ko. ngeen teral ko mu tàggatoo ko asa an yanfa'ana zaata yawm aw la rubbama. asa an yanfa'ana aw nattaxidahu waladan. Zulayxa wa qarrarat laaxiqan an tattaxidahu waladan li yasira fardan min al aa'ila. léegi bu yu la Zulayxa tamit su ko neexee mu jàpp ko doomam. ومن عساه يكون أجدر من يوزر سيف ah user sif kay moom yooyu na loolu waaye maire bi d'accordul de maire bi moom day comme yoo xam ne ay sàmm lañ neen loolu daal moom gis nga toujours ñuy wër ñuy ñuy wër woo ñi nga xam ne ñooy wër buur yi dañuy xam histoire ay dëkk xam histoire àll bi histoire ville yi moo tax toujours kilifa looloo koy war dafa war am entourage bu baax boo xam dañuy xam lu bari wax xale bi rafet na ni man mosuma gis xale bu mel nii. kii est-ce que du nekk jaam. وجهه لا توحي بالعبودية. non non kii daal xale bi daal kanamam nuru ma kala mu ko nar a nekk jaam de. هذه هي حجتك. fii mooy sa néeg yow Youssouf. hal ndax ndax yéem na la kontaan nga ceeb. allahu akbar mooy la yàlla wax ne wa kadalika makkannaa li Youssouf ci laa ko defalee tamkiin gis nga tamkiin ma leen doon wax léegi yàlla nee na defal ma ngoog wa kadalika makkanna li yusufa fi l ard wa li nuallimahu min tawil al ahadith wallahu ghalibun ala amri walakinna aksara annaasi la yaalamun nee na sant naa la fii sax néeg bi xet gi daa neex lépp lu mu soxla andil leen ko ko préparé leen ko dee leen ko toppatoo allahu akbar yàlla mu ni ndeka noonu nag ci laa defale Yusuf tamkin mooy ak dal xelam dal dootul am benn jafe-jafe ngir nag ma commencé ko nag sol xam-xamu nu bu bëgg mooy xam-xamu yonente gi nee na ci la ñu xam ne nag yàlla noonu ñëpp gis nga mbokkam yekoon na toon ba jaayee ko ci fukk ak juróom-ñett Malick jëlaat ko jaayewaat ko ñetti junni yàlla nee na ah yàlla noot de fi mu nekk nii bi ñu ñëwee fii jàppe ko jaam yàlla defal na ko mu am dalwaay bu neex allahuma anzilna munzalan mubarakan wa anta xayrul munzilin gis nga boo wàcce ab dëkk mbokk yi ñaanal ñaan boobu yàlla sant naa la. an istanqadtani min al-ubudiyya war-riqq. génn nga ma ci njaam. bir-raahati war-raghadi min al-'ayshi. may nga ma noflaay ak xéewal ak dund gu yaatu. yaa Yuusuf. ama koy wax ak moom yow Yuusuf. laqad makkana laka Allahu fi l-ardi wa habaaka bi manzilatin 'udmaa. yàlla defal na la ak dal ak wàccuwaay bu kawe. wastanqadaka min qa'ri l-jubbi wa rafa'aka maqaaman 'aliyyan. mu génn na la ci teen ba. dugub yëpp la ci makkaan yu kawe yi yëkkati bu kawe. yàlla daan na la fi bindee ba mu yëg dana la xamal nañu firee gént ngir nga gën a xam ñax ñoom seen i secret yàlla koy gën a xam yàlla sànni na leeru ngëm yàlla sa dënn bi yàlla xamal na la lépp loo réeré woon allahu akbar waa ji ñëwaat na de allahu akbar laka shukru wal hamd sant naa la gërëm naa la ashkuruka ya ilahi ala hadihi niam yàlla maa ngi lay sant ci xéewal yi nga ma defal ah gis ngeen de mbokk yi kon Youssouf léegi am na tamkiin Malik ibnu Zahar jaay na ko waaye Malik jaay na Youssouf waaye laal na laalaake lu mu koy jural mbokk yi xool Malik ak xaalis bi. allahu akbar waaye ji ne Malik Malik nee na ko da ngaa perte nee na ko jaay nga leen moo leen lu lu ñu nattoon ci or boo leen ko jaayee tamit jaay njëgam nee na ko perte nga amoo ci bénéfice de. yaa ngi ko jëndoon fukk ak juróom-ñett jaay ko ñetti junni waaye perte nga loolu bénéfice bu ñu da dajji woon montagne yëpp def ko or nga jaay ko Youssouf ba tey da ngaa perte ndax xamoo ki nga jaay mbokk yi waa ji moo gën a xam Youssouf Falih mi. hal تعي ما تتفوه به؟ تذكر كيف ضمن طريق وسط العصر؟ وكيف بركت الأباعر عند بئر الماء المالحة؟ nee na xoolal fi jaar teen bu weex ba ak lim barkeele mu mujj neen. هل كان من أجل أن تصيب أنت ربحا كبيرا أم كان لنجاة يوسف؟ xoolal ndax da ngaa jaay Youssouf wala da ngaa muccal Youssouf nee na ko nee na ko baa xam nga ni barkeb teeg bu neex ba ci barkeb Youssouf xanaa fàttaliku woo yow sama loxo ba nam seeme woon Youssouf ñaanal ma mu wér. dara faju ma dudul ñaanu Youssouf ga allahu akbar xoolal mbokk yi. kayfa stanqadani Yuusuf min barakatin nee na ko ba tey fàttaliku fàttalikuwul ba ma feebaree bay waaj a dee Yuusuf moo ma ñaanal ma wér ci ñaanu Yuusuf ga laa wéree woon ci barke Seydina Yuusuf nee na ko dajal nga alal ju bëri waaye xam nga ni kii nekkul mbindeef comme mbindeef yi wute na ak ñoom nee na li ngeen dund yëpp ay kéemtaan la kéemtaan suñu borom lii yonent yi rek ñoo am lii man sama xel néew ci woon sax yonent yi rek ñoo am lii neen woon man loolu lépp nan laa ko fàttee nan la sama xel ñàkk dem ba ma jaay Yuusuf لماذا لم يطلعنا على حسبه ونسبه loolu tax la Yuusuf li ma jaax lu tax askan فلتحل عليك اللعنة يا فليح نغصت علي حياتي كنت مسؤولا لأنني أصبت ربحا وافرا أما الآن فأنا أرى نفسي خاسرا أكبر man jaay naa lu ma xamul de laal naa laalaakee de الويل لك يا فليح wala istisgara ñeel na la. fa ana lam abi abdan. man jaayuma jaayuma waliya min awliya illah aw min anbiya'i yàlla laa jaay ku yàlla yónni laa jaay yonent laa jaay. kulla dhalika al adab fi qawli. nee na ko Malick yooyu yëpp xamoon nga ko xale bu li tax waxul mooy ak yaram ak tegginam. léegi ay ay ñeewanteem la lan moo tax. xoolu xooluñu xolam lan moo tax xooluñu jikko yu rafet yi mu doon def ñuy xool alal. nee na ko yàlla yëpp weddi naa leen. jublu naa ci yàlla jublu naa ci yàlla yàlla ji Yuusuf doon wooye man gëm naa ko sawfa ah. u'awwidu ala nafsi haadhihi al-khasaara laa budda min an af'ala shay'an danaa ko jëlewaat danaa jëlewaat xale bi de Malick gis nga moo gën a jege Yuusuf ci mbokk waaye fale moo ko ëpp chance ci jot ci ci ci martaba laa yasawnaa an naf'ala shay'an al-aan nee na ko mënuñoo def dara isbir hattaa yatla'a al-fajr bàyyil ba fajar guddi dafa guddi fi mu nekk nii bàyyil ba fajar ah mbokk yi Malick mbokkam la jaay de nee na kéemtaan yooyu ngeen wax ci ci wàll yu lay ak ci yonent kon man ki ma jaay ab yonent la. wàllu yàlla laa jaay ana ko boo jubale yoon wi ba ca mujjantal ba rek daa ko gis. allahu boo toppee askanam ci ñaari maamam da ngay àgg ci Ibrahim direct kon moom mbokk la ci Yusuf bal mag la sax ci Yusuf ñëw nañ ci palais bi pour récupérer waat Yusuf lan ngeen fi def yéen ñaar fi étranger du fi taxaw jina li mulaqati ala al maqam Potifar dañoo bëgg a gis Potifar ci Amun nee nag dem leen ci ngeen teggu ko mooy chef d'état major bi ku yor wàllu armée bi moom ngeen di moom ngeen di tàggu pour war a agsi ci Potivar parce que mën leen jot ci Potivar direct. Sayyid al-Qaa'id, thamata rajulaan yawaddaani liqaa' al-haakim Potivar. am na ñaari góor yu la bëgg a gis yu bëgg a gis Youssouf yu bëgg a gis kilifa gi. maazaa turiidaani min Aziiz Misra Potivar lan lañ bëgg ñoom ñaar lan lañ soxla ci Potivar. laqad ba'tuhu bil-amsi abdan. dama ko jaay dégg nga benn jàpp qul lahu inna rajula allazii ba'aka al-ghulaama al-baariha qad jaa'a li liqaa'ik nee na xale bi ki la jaayoon góor gi la jaayoon jaam bi. dafa bëgg a gis ak yow dama lan nga bëgg laa wax waxal li nga bëgg. qabadna minhu thamanan yafuqu thamana alladi yastaxiquhu al-abd. wa shi'na li nu'ida al-mal njëg njëg goo xam ni dafa tuuti ci par rapport li xale bi war a jar ñu bëgg koo jëlaat. xasanan intadira. waaw baax na xaar leen ma gis ak moom gis de. ما الخطب رودامون؟ رودامون لخاو التاجر الذي باعكم الغلام البارحة واقف بالباب يطلب لقاءكم ميغي تي بنت بي بور بغا داجاك يو mbokk yi gis ngeen Roudamoun moomu mooy chef d'état major bi moo yor armée bi moo àndoon ak ah Potiphar dem jënd Yuusuf. tabdu masruran ayyuha al-abrani. xale bi daa mel ni yow sama jaam bi daa mel ni kontaanoo de. yasuruni an akuna ha huna. walakin man kay kontaan naa ci nekk fii waaye nag. bëgg naa fee nekk waaye nag. man daal li ma metti mooy li nekk gi ma nekk jaam. loolu moo metti. wa hal turana nu'amiluka kama yu'amalu al-abid. ndax da ngaa bëgg ñu def la comme ni ñu def jaam yi. tu'amilunani bima yaliqu bi azimi maqamikum. lakin man daal li tolloog seen daraja laa bëgg ngeen def ma ko rek. Ah, ngeen bëgg ci man rek. يا له جواب حذق وملائم أبني عليه أمالا كبيرا إنه يجيب قراءة الكتاب kii daf mën naa bind mën naa mën naa liir loolu lépp rafet na parce que làmmiñ mi dafa set fecc falaa budd nag daxel na dal yow sang bi man du ma wax lu dul du ma waxati bis ni tey ginnaaw tey lu dul ngeen ngeen jox ma ndigal ah loolu rafetal nga looloo gën nag lu bëree bëri. yow ban dëkk nga bokk sa yaay nu mu tudd sa baay nu mu tudd. nee na ko loo soxla ci fameem kii ab kaw kaw la kii ñoom ci ay ay tante lañ dëkk ay kaw kaw lañ. hal talaba ahadun ra'yaki. nee na kan da laa laaj sa xalaat yow laaj ñu la sa xalaat. lakin malamiha wajhi yuzarsif. nee na kanam yu yu yuzarsif daal daf may nuru daal ñoo xam ni ay nit yu baax lañ ay nit yu sell lañ ci askan bu baax la bokk loolu la may nuru. moo tax Malick Malick Afale ñëw nañ ñii ñoo la doon laaj nag yow boobu. mal amru ayyuha taajir. commerçant bi luy sa mbir la'allaka nadimta aw tarajaat. bala xanaa da ngaa réccu li nga doon jaayee. déedéet réccu ma sax waaye. qabla an ashraxa lakum sababa majii. balaa ma lay leeral li xew awaddu an umdiya walaw daqaa'iqa macduudaat ala infiraadin maca Yuusuf. balaa waaw damaa uh, bëgg daal bala may wax li uh, xew daal damaa bëgg nga may ma ma gisee. waddicahu lilmarrati alaxiira. dama ko bëgg a tàggu rek. ana afhamuk. fama asraba an tufarrika shaxsan dariifan ka Yuusuf. waaw yow xam naa bëggoo taxale ko jëmm ju tedd ji ju mel ni Yuusuf nee ko préparel ko mu dajeeg moom ci benn ci saal bële neen daa bëgg a tà tàggoog moom amul benn problème ah mbokk yi góor googu ànd ak di ngeen xam mooy kan allahu akbar allahu akbar ah yi Malick ñu déglu ko baax a baax nag Malick comme que dafa fas yéene tàggoog inna qalbahu la yutawi'uhu ala firaqih xol bi mayu ko mu tàqali ko xale bi de waaye mi ngi xool ndax amul ay caméra de surveillance ay caméra yoo xam ne mën nañ ko cee gis ndax lim mu bëgg a waxtaan ak Youssouf rëy xool na bunt yi ndax tëju na bu baax a baax. mbokk yi am na laaj yu ko bëgg a laaj. allahu akbar. لقد جئت لأسألك عن اسمك وعن بلادك ولا نغادر المكان حتى تقول لي كل شيء دوما في jóge loolu nga wax ma yaay kan كلا nee naa la maay doomu teen bi سمعت هذا من قبل man déglu naa loolu bu yàgg أقسم عليك بالله الذي لا إله إلا هو أن تقول لي كل شيء ومن تكون nga wax ma yaay kan bala maa taxali koog yow عليك أولا أن تعاهدني أمام الله danga may danga may fasante kóllëre sa diggante ak yàlla ni secret bi ma lay wax doo ko wax kenn fasante naa yow kóllëre du ma la feeñal giñ naa ci yàlla Ibrahim nii du ma wax yaay du ma wax say mbir du ma ko feeñal say sëg man maa Yusuf doomu Yaqub doomu Isxaaq doomu Ibrahim mii xaritu yàlla allahu akbar kooku mbokkam la tuskare ñeel na ma alwaylu lii tuskare ñeel na ma ay waay tuskare ñeel na ma Ah. أنا وأنت أبناء عم yow ñoo bokk yow ay doomu ay doomu baay baay tex lañ man Isaaq moo sama maam man ci sëti Ismaayil laa bokk. laa tarhamni yaa Allah. yow yàlla yàlla boo ma yërëm. ayya jarimatin iqtaraftuha. man ban bàkkaar laa def ay waay jaar naa ab yonent waay. baatuka Yusuf. lu tax Yusuf ma jaay la man. la talama araftu annana abnaa'u umuuma. man xam naa ne ñoo bokk ay baay. waaw li li xew suñu diggante nag man bëgguma ko woon. waaye xamoon naa bu yàgg ba ma jàkkaarloo yow laa xam ne xew waaye yàlla dogal ñu andi ma Misra pour ñu dawaloon pour nga andi ma Misra jaay ma lépp tëralinu yàlla la. ظهرت على يديك آيات وكان علي حينها أن أفطر إلى أنك لست كسائر خلق الله man xam naa ne bokkul yeneen mbindeef yi بل أنت نبي الويل لي من بائع نبي في سوق النخاسة سأحمل هذا العار دائما اهدأ الآن هيا انهض jugal taxaw. allahu akbar alladi jara kana muqaddaran nee naa la li xew nii yàlla ko dogal man damaa waroon a ñëw fii pour joxal yonent ak yàlla gi. maa ngi lay sant ci sa liggéey ma indi fii pour ma joxal liggéey yàlla nee na ko li ma li ma def naa ko dinaa ko fay de. jëlal lii ma la jox. هذا هو صق العبودية الذي وقع عليه أولئك الفتية. sama mbokk sa mbokk yi gën ma jaayoon wane ni maa la moom. këyit gaa ngi jëral nga garde la waaye nag tasma ma sayaduru baynana min niqash nee na ko li ma wax nag na yem sama diggante ak yow lettre bi la sama mbokk yi bindoon sa mbokk yi bindoon wan biñ ma bindaloon wane ni man maa la moom tey joxaat naa la ko allahu akbar mbokk yi gis ngeen alal ji Malik ibnu Zahar indiwaat na alal ji ana ataqaddamu min saahibi al-maqaam Putifar aziizi Misra bi talabi al-uzr kilifa gi maa ngi indiwaat lakinnanii mudtarrun an atluba ilaykum fasxa al-aqd alladi baynana nee na ko lam uridu an abi'a Yusuf. nee na bëggatumaa jaay Yusuf su ma bëggoon nga delloo dama bëggoon nga delloo ma ko jël alal ji. <laughs> reetaan na ko de. ahsant ahsant rafetal nga. rafet nga wax saa kuntu an'atuka bil ahmaq alladhi farrata bi jawharatin yow ginnaaw avant une heure de temps ab dof laa la jàppe woon waaye xam naa ne yow léegi nii léegi yow nag sa xel ñëwaat na mablaga qimat al jawhara kon xam nga nag or bi nga jaay li mu jar waaye tardé waaye maa ngi nga tardé de nee na ko da nga waroon xalaat bala ngay jaay. waroon xalaat bala ngay jaay. lan atawaana an abdula kula sarwati wa ma amlik liqaa istirdaadi Yuusuf. bëgg naa laa jox li ma am lépp si alal pour nga delloo ma Yuusuf. alam tasma ma qaalahu al-haakim xanaa déggu li ñu la wax yow. fii ñun duñu xaaj li ñu jaay. wa ana bi dawri نحن لن نبيعكم ولن نغادر هذا البلاط من دونه اسمعاني إذا كررتما هذه الوقاحة فلن أتوانى أبدا عن سجنكما اخرجا من هنا أنا لن أغادر القصر إلا ويوسف برفقتي يا عالم مقام اسمح لنا أن نسترجع يوسف ردمون أودع الرجلين السجن اللهم اشهد انني وان اشتريت يوسف لابيعه فقد ندمت على ذلك ارجعوه ردوه الي لن ابيعه لكم يا أيها الذين أريد يوسف أرجعوه إلينا أحبسهما من هنا يوسف هيا لن أبيع يوسف هيا يوسف لن أبيع أبدا الله أكبر يوسف جنبني جاي الله أكبر ندم الرجل حبذا لو عفى عنهما العزيز فقد نجا شماعنا الخطر لأجله ñoom erreur bi am ni amaana sax man sama loxo ngi ci biir kon bu leen tëj ay waay baal leen waay soxna saa ngi bëgg a ñaan de laqad istaxaqa an yuaqaba bi qaswa nee na ñi dañ leen waroon dumu dumay métti dañ leen waroon mbugal ukarriru talabi maa ngi ñaanaat nga baal leen ca yàlla tax sawfa asfaxu anhuma li ajli Yuzarsif danaa leen baal ngir Yuzarsif mii allahu akbar falyutlaq saraxuhuma nee leen nañ leen bàyyi nañ ko bàyyi mu dem waa amatuma soxla ci tëj leen nañ leen libéré gis nga mbokk yi Petit Var bi mu jëloon mooy ñu tëj leen ndaxte ku ñëw bay jaamarloo buur di wax ak moom dañ laa war a tëj waa lan mooy sa secret ba tax nga nga nga defal leen lii أنا لا أملك من أمر نفسي شيئا man samay mbir moom la ci dara jaam bu néew kattan bu mel ni Youssouf amul benn amul benn nee na man daal gis naa nga ne li nekk ci. usage bi ma tafaqna alayhi aada ilayna kaamilan. xoolal alal ji d'accord ba jaay ko sax dellusiwaat na. jël nañ suñu jaam jël nañ suñu alal. nee na man du ma fàtte lu rafet. lu rafet loo def ci man danaa ko del danaa la delloo lu ëpp alal. nee na man daal cadeau cadeau bii nga ma may daal man cadeau boo xam ne taxe naa ci. kalimama ñu bàyyi ko xel yuzarsif na sangu sol yeneen yére summi yéreem yi na sol yére yi gën a rafet kalimama gis ngeen moo nekk ci wetu Zulayxa هل تنبهت إلى أنه بخلاف جميع الآخرين لا ينحني إجلالا أمامي nee na baax man li ma jaaxal mooy xale bi sujjootul ba léegi comme ni ko ñeneen ñi def mu ne ko garaaw yooyu yëpp xam naa xamu ko dana ko jàng danañ koo xamal أظنه يتعمد عدم الانحناء لي non dama yaakaar ni waa ji daa bëggut a su dafa maa bëggut a sujjootal rek mm. gis nga ñoom Malick ñu ngi noonu uriidu an astarji'a Yusuf Yusuf damaa bëgg a jëlaat Yusuf joxaale leen sama jàmm bi joxaale leen Yusuf نريد يوسف لا أريد أن أبيعه نريد أن نسترجع يوسف أعيدوه إلي الآن دلوا لين مكو لا أريد أن أبيع يوسف أرجعه إلي بقوا ما جاء يوسف إلي على الفور لم نعد نريد أن نبيعه لا أريد أن أبيعه يوسف الله أكبر yéen mbokk yi Youssouf teraanga bi mu def ñi day ko si jëloon mooy dañ koy tëj waaye baal nañ leen waaye gis ngeen waa église ba ñu ngi noonu ñoom kon ko delloo leen ñu ko. كان الحظ حليفكما لولا وجود يوزرسيف لكنتما الآن في السجن nee na ko yéen ñi décision bi buur bi jëloon mooy tëj leen waaye Youssouf fi moo tax mu baal leen nee na ko du ma fi jógee lu dul ma ma jëlaat Youssouf fi nee na ko ma bul dugal sa bopp ci alkande jógal fii yéen dañu leen waroon tëj waaye Youssouf moo wax nañ leen baal kon yéen dem leen seen yoon dañ waroon tëj ngeen am lu ngeen wax fii pale la kenn du fi jaay di xàcc. waaye ndax Malick dina ñib mbokk yi Poutifar wa zawjatuhu laysa ahmaqayn ala shakilatina hatta yufarriqa bi jawharatin mithli Yusuf dofu ñu xam nañu or laa leen jox laqad xasarna ya falih xasarna ñun parti nañ pare ñun perte nañ nee na ko yow yaa perte waaye man pertuma dafartu bi akbari ribhin fi hayati nee na man am naa ci mar maanaam bénéfice bu ëpp noo ko noo ko amee min ghayri an tahuza ala shay'in liqa'a khasaratik nee na ko yow da ngaa jëloon Yusuf te amoo ci moom dara sababan wa dafi'an li a'rifa ilaha Yusuf man fexe naa ba xam yàlla Yusuf ba dugg ci lislaam وعزمت على أن أنبذ الأوثان nee na man sànni naa xërëmi sama ginnaaw xam naa sama borom jaare ko ci Youssouf. balaa kon yow yaa perte waaye man pertu ma. wa xaqillah annani alxaasir. nee na wallaahi wax dëgg annani baatu nabiyyan min al anbiya. man ab yonent laa jaay man maa perte lakinnii saabqa naadiman aluumu nafsi maa xayyiit. man dinaa yedd sama bopp dinaa des fii ci dëkk bi. man nag dinaa dellu dinaa dellu incha allah tasaare fa daawa bi mooy tasaare fa diine ji li ma Youssouf jot a jàngal dinaa ko dem tasaare ji def daawa ci sama dëkk kon man perte ma yow mi yaa perte kon Fali jël na décision pour dellu nag daawa ji waaraate ji comme ni ko Youssouf jàngal ndaxte moom lim an li andi ana falan ugadir al madinata ma dama Youssouf fiha nee na man nag comme que yow dem waaraate ji man fii nañu dellu ca suñu xayma ya man décision bi ma jël mooy dellootuma suñu dëkk fekk jotuma ci Youssouf jotuma dellu dëkk ba allahu akbar gis ngeen mbokk yi mi ngi noonu kon Thiénaba TV à votre disposition pour la couverture de vos événements pour la couverture médiatique des grands événements si elle